بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وصوره والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن وقيل له اقرأ وعلى آله وصحابته الذين اختلفوا في تفسير كلمة حين في القرآن الكريم mbokk yi nga xam ne yéen a safoo Malikiya TV leeru Maodo ci biir réew mi ak bitim réew yéen ñépp rek ñoo ngi leen di boole baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu amaat mbégte ak kontante dellu si ngir ànd ak yéen ci seen émission bi ñu tudde alquraanul karim ak li ci aju su ngeen fàttalikoo émission bële wey ñi ngi woon ci ngëneel yi nga xam ne dafa nekk ci firi alquraanul karim ak ki nga xam ne mooy firi alquraanul karim waaye nag na doon koo xam ne mën naa firi alquraanul karim ndax waxuñu yàlla wante yonent bi alayhi salaatu wasalaam rek nee na ku ma waxal lu ma waxut demal nga jël baa nga teg ko ca safara nga xaar ma fa kon ku waxal yàlla lu mu waxut moom nan ngay def ñi ngi woon ci ngëneel yi ñi ngi woon ci juróomeel bi ñu dellu ci ndax fi buum gi dagge woon ñu fas ko fi yow mi ñu doon topp nga xam fu ñu tolloon benn boroom xam-xam bu mag bu ñoo wax Ikrama saxaaba la moom nee na fi yàlla di waxe ci suuratu nisaa ci aaya téeméer yàlla ngi fay wax ne wa man yaxruju min baytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi képp koo xam ne danga génne sa kër ngir gàddaay rawale sa diine rawale sa ngor rawale sa pas-pas te dara taxul lu dul wut ngërëmal yàlla ak ngërëmal yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo faatoo da ngay mel ni ku jëmm jooju nga xam ne mooy man xam nga ca alfiyatu ibnu malik yàlla moom ma ngay wax moom borom ibnu malik wa man wa ma ma dukir xam nga man ismu mawsuul la ci alquranul karim li taxoon ñu la in fokk nga aay ci grammaire arab da ngay gis yàlla di wax ne yusabbihu lillahi ma fi samawati léeg-léeg muy wax man kon nag ñaar yooyu xàmmee ko ci làkku arab ba xam benn bu ci nekk bu ñëwee lan lay tekki ki nga xam ne day firi alquraanul karim war na leen a mën a ràññale Ikrima nag nee man jooju di nit kooku nan la tudd Akrama nee na toog naa fukki at ak ñeent di ko wër tur woowu kan la nee na mujj naa ko xam ko ñuy wax damra ibnu Habib la loolu mooy wane ne alquraanul karim dañ ko war a firi alquraanul karim dañ ko war a xam alquraanul karim dañ ko war a leeral alquraanul karim suñ ko xamul day mel ni wuy wu tojut wuy wu tojut nag du man cafaay cafaay ci ki nga xam ne dafa nekk dakaar mooy buy bi buñ ko jëlee jamb ko sef ko ci laax bi loolu la ñuy cafaay boo ko bëggee wax ci langage boo xam ne ki dëkk dakaar wala ci ville yi dana ko mën a dégg da nga naan mënuloo omlet te tojuloo nen kon alquranul karim lii tax ñu mun ko jariñoo mooy ñu xam lan lay tekki lan lay firi waaye toujours rek damay insister ci ki nga xam ne mooy ñëw di ko firi na doon koo xam ne ku mën a firi alquranul karim la foofu nag il faut ñu wax nit ñi ne xam alquranul karim lépp de A à Z ci ni ko yàlla bëggee loolu mënul nekk ndax ku toll ni yàlla la moo wax loolu moo tax maam Cheikhul Xaaji Malik Si radiyallahu anhu bi mu firi alquranul karim ca ndar ay nit dajale ay laaj jox ko benn waay ne ko demal nga laaj ko ko pour tiiñal ko pour défier ko waa bi mu ñëwee daf ne aynal mufassiru ana kii firi alquran maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiallahu anhu ku modeste la woon te loolu war nañ ko jànge ci moom te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku wàcce sa bopp yàlla yëkkati la ne ana kii maam Cheikhul Xaaji Malik yëkkati kaamil bi ne ko hada huwa al mufassir ne ko téere bi mooy firi boppam ñun dañuy nettali rek waxi borom xam-xam yi ci nan la ñu dégge aaya yi ak nan lañ ko firee kon fukki at ak ñeent su fekkente ne ak Ikrama toog na ko di wër benn tur boo xam ne yàlla def ko wax ci alquran te xamul kan la loolu day wane importance su xam alquranul karim li muy tekki moo xam aw tur la moo xam ab atte la moo xam léebu la moo xam histoire la moo xam anecdote la yooyu yépp ñu xam lu ci alquraanul kërim wax daf ñuy amal njariñ te day tax mu changer suñu comportement ci dund bu juróom-benneel bi ci wane ne alquraanul karim firi ko dafa bëri ngëneel ki ko mën a firi di ko firi dafa bëri ngëneel ci moom am na boroom xam-xam bu ñoo wax ibnu abdil barri moom nee na kooku nga xam ne moom la ikrama doon wër mooy ku ñuy wax damra ibnu habib bu juróom-ñaareel bi abdullah ibnu abbas nee na man dey dund naa ak sayduna omar ibnu alxataab radiallahu anhu bëgg koo ñaari jigéen ñi nga xam ne soxna yonent bi lañ salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi nga xam ne ñoom ñaar dañu nekkoon ay xarit waaye léeg-léeg ñu takkutoo ñoom ñaar ngir yonent bi alayhi salaatu wa salaam Abdullah ibn Abbas nee na toog naa ñaari at bëgg a laaj Seyduna Omar ibnul Xataab lan moo tax ñaari jigéen ñooñu ñuy tudd ñu nekkoon soxna yonent bi ñaar ñooñu ñan la Abdullah ibn Abbas nee na am naa ñaari at bëgg ko laaj Seyduna Omar waaye ñemewuma ko ko laaj ndax personnalité Seyduna Omar loolu liñ ciy déggee benn important su xam alquranul karim li muy firi boroom xam-xam bu toll ni Abdullahi ibn Abbas su toogee ñaari at ngir bëgg a xam ñaari jigéen di ñaari soxna yonent bi di suñuy yaay ñaar ñooñu nga ne ñemewu maa wax kompaloo ndax suñuy yaay lañ waaye mën naa wax nañ ñoom ñaar dañu ànd xaj na dañ doon kaf ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abdullah ibn Abbas nee na ma bëgg a xam ñan la ma toog ñaari at bëgg koo laaj Seyduna Omar waaye ñemewuma ko ndax Seyduna Omar du ko amoon personnalité loolu liñ ciy jànge mooy ab jullit dafay am personnalité am personnalité ak dangiiral nag bokkut wala koo xam ne dafa arrogance arrogant baaxul mooy ku rëy ku yëg boppam waaye nag fonk sa bopp moom baax na ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon jamono ngi ñëw jullit yi dana ñu bari waaye ay altoppe la ñuy doon dañuy mel ni mbuubitu taw mbuubit mooy bu tawee ba mu inondé salte yi nga xam ne moom la ndox mi di yóbbaale ba mu àgg fenn ñu kalewu fa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon danañ dem ba jamono jullit yi noonu la ñuy mel mooy daf doon joxe exemple ci ni jullit yi ay al toppe la ñuy doon mooy ay roy dàq lu jóge tugal ñu roy ko wàcc seen ànd di jël jikkoy ñeneen Occident wala feneen fum mu mën a doon ñu ne waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam jullit yi lan moo tax jamono boobu dañuy bari mais dafay mel ni représenté wuñu dara mu ne dañu doyadi loolu moo leen ko jural loolu moo tax ki nga xam ne dafa wax ci xam-xam rawatina kuy firi alquraanul karim warul doyadi bëgg luñ ko jox warul tax muy jël aaya yàlla yi di ko interpréter ci façon boo xam ne wut lu neex nit la wala di ko firi ba àgg foo xam ne jàpp na ne lii su ko waxee diw dana mer ñun ñépp nañu xam ne alquraanul karim aaya boo yëkkati mbubb la koo ko solal am na ku mu jot bu ko defee nag bu dee ne aaya bii bu ma ko firee ni ko yàlla waxee diw dana mer dama koy tëb wala ma di ko interpréter ci façon interprétation éloignée loolu waxal yàlla lu mu waxut la li ñu bëgg a wax rek mooy am importance su firi alquranul karim ba tax abdullah ibnu abbas am ñaari at bëgg a laaj sayduna omar ñaari jigéen ñooñu ñan la te ñaari soxna yonent bi la kon mooy wane ne alquranul karim xam li muy wax lu am importance la waaye Abdullah ibn Abbas nee na mujj naa ko ko laaj ñu ne ko ba nga ko laajee lan la la wax mu ne suñu yaay Xafsa la ak suñu yaay Aïcha kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yi ñemewuma wax clan mais damay wax groupe suñu yaay Xafsa ak suñu yaay Aïcha dañu déggoo woon ku demee ni suñu yaay Maymuna suñu yaay Ummu Salama soxna ummu salama turam ñii ne nañ mooy hindi ñii ne mooy ramla ummu salama dàkkantal la moom dafa amoon doom ju ñuy wax salama mi ko amee woon ci borom kër bam bu njëkk bi laataa yonent bi alayhi salaatu salaam di ko takk bu juróom-ñetteel bi ci yiy wane ne alquranul karim firi ko lu rëy la lu am ngeneel la lu am importance la ki ko xam war na ko def ndax nit ñi mën a jariñoo alquranul karim bu juróom-ñetteel boobu iyaas ibnu muawiya nee na ñi nga xam ne dañuy jàng alquraanul karim booleeg teggin ya di sàmmoon teg charte ya ba noppi xam li alquraanul karim di tekki xam nga nu ñu mel ñu ne ko déedéet mu ne xam nga ñi nga xam ne dañuy firi dañuy jàng alquraan te xamul lu muy tekki mi ngi mel ni ay nit ñoo xam ne seen président daf leen bind benn lettre ñu nekk foo xam ne fu lëndëm la amuñu làmp amuñu sondeel amuñu daal dara luñ mën a niite téere bi ba jàng ko nee na ñi nga xam ne dañuy jàng alquraanul karim te amuñu ku leen ko tekkil te ñoom mënuñu ko tekki ñi ngi mel ni ay nit ñoo xam ne seen kilifa daf leen a bind lettre lettre bi yegsi ci guddi amuñu làmp amuñu sondeel amuñu lenn luñ mën a niite mbind mi pour mën koo jàng kon ñi jàng alquran te xamuñu alquran lu muy firi ñooñu noonu lañu mel ñu ne ko waaw ñi nga xam ne nag dañuy jàng alquranul karim xam lu muy firi nu ñu mel mu ne ñiy jàng alquran xam li alquran di firi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo dem indi làmp bi niital leen ñoom ñu mën a liir alquran xam lu muy tekki kon nag gis ngeen alquranul karim firi ko ni mu amee solo ak ni mu rëyee ak ki nga xam ne mën na ko firi di ko firi kon indil naa la juróom-ñetti ngëneel yoo xam ne mi ngi aju ci importance su firi alquran importance su xam li alquran di wax important su xam li alquraanul karim di tekki waaye itam juróom-ñett yooyu dafay aju ci jëmm ji nga xam ne mën naa firi alquraan mu di ko firi ngëneel yu baree bari la am te bii ma wax léegi nga xam ne Iyaas ibnu Muawiya moo ko wax ne kii jàng alquraan te xamul lu muy firi mi ngi mel ni koo xam ne kilifaam daf koo bind lettre lettre bi yegsi ci guddi amut làmp amut lum ko mën a niite pour jàng ko fi mu tooge noonu rek benn waay indil ko ab làmp mu niite ko ko ki indi làmp bi mooy ki nga xam ne moo xam li alquran di firi moo xam li alquran di tekki kon ngëneel yooyu nañ ci bàyyi xel kon ngëneel yooyu day wane ne alquranul karim firi gi farata la wante bi nga ko firee mu nekk farata ba pare yow mi ko firi te man ko da nga ciy am ngëneel ndax ñi ko xamul woon xam ko comprendre ko da ci lañ la ciy fay wante itam alquran buñ ko firiwul xamal ko nit ñi lu ci gën a bari du leen amal njariñ la plupart la société sénégalaise li ci gën bari alquranul karim ñoom mun nañ ko jàng am na ci ñoo xam ne la leen ci gën a soxal mooy bind ko benn ñu takk ko wala ñu def ko saafara wala ñu di ko léemoo wala ñu di ko jàngal ku faatu wala ñuy jàng kaamil ngir soxla yooyu yépp alquraanul karim ci kàttanul yàlla mën na ko ndax alquraanul karim su doon ne yàlla lu ñu composé la alquraanul karim parti la ci yàlla waaye yàlla du lu ñu composé kon moo lay wanal fooraayu alquran waaye nag yooyu yépp soo ko jëlee ci alquranul karim da ngay jël beneen côté bi mooy xam li muy tekki mooy tax nga mën koo jëfe ndax nit ki li mu xamul munu koo jëfe tombu ñaareel bi ci angal bi nga xam ne ci laa nekk mooy importance su tafsir alquranul karim yow mi toog ci kanam Malikia TV leeru Maodo bankal sa baaraam alquranul karim téere boo xam ne yàlla daf ko wàcce pour képp koo xam ne kii yaa ngi ci golob bi rawatina ab jullit soo ko jàngee xam li muy tekki xam li muy firi di ko jëfe sa jikko day baax nga nekk model bankal sa baaraam benn bu ñaareel bi alquranul karim dafa nekk genre benn constitution dafa nekk genre benn mémorandum boo xam ne yàlla def ko jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jox ko la communauté musulmane jullit yi muy al umma al léegi nag loolu suñu xamul lu ci nekk duñ ko mën a jëfe loolu moo tax wolof di wax ne xamul bëggul bëggul wutul wutul amul te alquranul karim su fekkee mun nga koo jàng-jàng gu rafet wàññee ko xam li muy tekki fonk gi nga fonkoon alquranul karim dafay gën a yokku soo seetee ñaar ñi nga xam ne kii moom day jàng alquran waaye xamul lu muy tekki keneen ki day jàng alquranul karim ba xam ba noppi xam li muy tekki ñaar ñooñu kan moo ciy gën a fonk alquran ci xam li alquraanul karim di tekki alquraanul karim boo xamee li muy tekki soo koy jàng moo xam ci julli la walla nekkul ci biir julli dafa am beneen yëg-yëg boo ci am bu bokkul ak ki nga xam ne daf koy jàng noonu rek te xamut lu muy tekki muy ñaar ñett alquraanul karim genre benn trésor la boo xam ne texe nit fii ci àdduna ak allaaxira mi ngi ci biir alquraanul karim texe googu nag mënuloo koo am mukk te xamuloo alquraanul karim li muy wax nga mën koo jëfe mu mën a feeñ ci sa jikko nga mën a nekk ab sang ñett ngoo ñeent alquraanul karim nit ñi luñ ko mokkal mokkal luñ ko mën a mën a jàng muy tëj wiid di ko jàng guddeeg bëccëg loolu baax na lool waaye xamuñu lu alquraanul karim di tekki kon li taxoon alquraanul karim wàcc lu ca bari jullit yi duñ ko jariñoon ndax xamuñu alquraanul karim lan lay tekki yàllaa ngi wax ci alquraanul karim ne ñu wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaas ma nuzzila ilayhim wa laallahum yatafakkaruun aaya boobu rek doyoon na ci jàngale ci wane ne alquranul karim dañ ko war a firil nit ñi dañ leen war a teqantal leeralal leen ko bañ xam lu muy tekki yàlla moo wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko man maa yónni jibril alayhi salaam mu wàcce ci yow alquran mu mel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na yàlla waaw alquran di jibril indil na ma ko jàng naa ko ba mokk yàlla ne ko dooyam ci loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko lu ma ciy teg mu ne ko li tubayyina linnaas alquran da nga war a fexe ba ñeneen comprendre ko te même yonent bi alayhi salaatu wasalaam su fekkoonte ne moom kese moo comprendre alquranul karim légewu ko saxaaba yi kon alquran foofa lay yem duñ xam lan la wax su fekkente ne yonent bi xam na ko ndax moom ab arab la saxaaba yi nekk ay arab waaye ci ñoom la yem ñoom firi liñ ko ñeneen ñi ba mu yegg si ci réew mu ñuy wax Sénégal ay wolof ak séeréer ak i bambara ak pël dëkke ko duñ ay arab nga indil leen alquranul karim ñu jàng ba fer ijji jàng ba mën a tajwiid muy ahkaamu tajwiid nga xam ne yooyu yëpp xam nañ ko di ko jàng njàng mu rafet waaye xamuñ lu alquranul kërim di tekki kon ba tey seen ak jëriñu ci alquranul karim dafa des kon daal yàlla nee na kon li tubayyina linnaas da nga war a expliquer nit ñi danga nga war a firil nit ñi danga nga war a leeralal nit ñi alquranul karim lu muy tekki mu mel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na yàlla waaw mais loolu lépp lan moo tax yàlla ne ko wala allahum yatafakkaruun ndax ñu mën a jëfandikoo seen xel ñaata yoon ngeen di fekk ci alquranul karim laallakum taaqiluun laallahum yaaqiluun ndeysaan suñ mag ñi ci seen boole yi comme ñoom dañu wutoon ay règle yu ñuy tudde boole ci wàllu naxwu bi ak wàllu nu ñuy jàng alquran ak nuñ koy bindee ba duñ ko yàq dañ daan wax laallakum ta laallahum ya seet nañ ko ba ngir mi jeex laallakum joo fekk taaqiluuna moo ciy topp wala tatafakkaruun laallahum joo fekk yaaqiluuna moo ciy topp wala yatafakkaruun mooy bii dafa nekk muxaatab bii nekk ghaib te loolu ci grammaire arab nga koy jàng comme ñoom nag booba xamuñu àtte yooyu ñu wutal ko seen réegal bopp te réegal yooyu nag dafa dëppoo ak réegal yi nga xam ne moom la làkku arab indi beneen bi ci topp mooy alquranul karim beneen aaya bii ñuy bëgg a jàngaat day wane ne alquranul karim dañ ko war a firi yàlla nee na yonent bi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru ayaatihi wa li yatadakkara ulul albaab yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam alquran jii daal dama ko wàcce ci yow muy téere bu barkeel loolu yaakaar naa ne lu waay gàtt-gàtt xel doo ko laam-laamee téere la boo xam ne li koy jàng ci àdduna kenn xamul nu mu toll téere la boo xam ne li ko mokkal kenn xamul nu mu toll téere la boo xam ne même scientifique yi bind nañ ci dem ci aaya yi nga xam ne ci wàllu scientifique lay wax géographie wala biologie ñu tudde ko les miracles du Saint Coran nga xam ne angal bu nekk nit ñi ñi ngi koy ñëwee di ko dikke ci alquran même ñi nga xam ne duñ ay jullit dañuy gëstu ci alquranul karim yàlla nag ne yonent bi alquran daal téere la bu barkeel ma wàcce ko ci yow mu mel ni yonent bi def na yàlla waaw lu tax mu ne li dabbaru ayaatihi dama bëgg jullit yi nañu settantal aaya yi nekk ci alquran lu muy firi léegi nag loo xamul nu muy tekki nan nga koy settantale nan nga ciy xalaate mu ne wali yatadakkara ulul albaab ñi nga xam ne boroomi xel lañ yu rafet boroomi xel yu rëy boromi xel yu ñaw ñooñu mën a fàttaliku mën a waaru mën a jëriñu ci alquraanul kërim kon même aaya bii dong buñ ci sukkandiku woon dañuy xam ne alquraanul kërim dañ koo war a firi ndax yàlla nee na yonent bi li tubayyina linnaasi ngir nga leeralal ko nit ñi ngir nga tekkil ko nit ñi ngir nga firil ko nit ñi ñett yàllaa ngi wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko afalaa yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaluha yàlla def na yonent bi mais man dafa mel ni dama waaru yonent bi ne yàlla mais lula la waar mu ne ko waaw ñoom xanaa yi ñuy wax ak di ko def xanaa dañoo settantalul alquranul karim wala boog ñoom seen xel yi ak seen xol yi dafa muuru tadabbur muy ñëw ci benn mbir di ko seet di ko settantal di ko vérifier ci angle bu nekk loolu loo comprendre nga ko mën a def kon soo comprendreul alquranul karim soo ko bëggee def du sotti loolu moo tax nag alquranul karim dañ ko war a firil nit ñi wax leen lu muy tekki ba ñu xam ko yàlla dellu waxaat ne wala qad yassarna alqurana li dikri fa hal min muddakir yàlla nee na man daal alquran maa ko yombal ci koo xam ne kii dafa bëgg a jàng alquranul karim ci koo xam ne kii dafa bëgg ñu firil ko alquran ci koo xam ne dafa bëgg xam lu alquranul karim di tekki ndax am na kuy ñëw di seet di seetantal ba waaru xam alquranul karim lu muy tekki xam nga wala qad yassarna alqurana li dikri borom xam-xam yi dëppoo nañ ci sikkar yëpp jàng alquraanul karim moo ci gën rawatina bu nekkee ci biir julli loolu moo tax nag erreur la njuumte la lu garaaw a garaaw la lu danger la jullit boo xam ne boo xëyee lu ne daa ko jàng ñaan gune ne waaye alquraanul karim doo ko liir doo ubbi kaamil bi loolu jullit bu nekk war na ci bàyyi xel alquraanul karim war nañ ko mën a gën a fonk war nañ gën di ko jàng waaye war nañ gën di ko leerlu ñu di ñu ko tekkil di ñu wax lan lay jariñ atte yi ak léebu yi ak proverbe yi ak histoire yi yooyu yëpp ñu mën di ci dellu ndax alquranul karim gën ñoo mën a amal njariñ kon yow mi nga xam ne yaa doon topp alquran ak li ci aju ci kanam écran Malikia TV ci biir réew mi ak bitim réew nga àndoon ci ak sa mbokk Mansour El Hadji Malick Fall ñi ngi leen di tàggu foofu di leen wax ne dumtum fi riayatillahi wa xifdihi wa amaanatihi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu